jërëjëf euh, Ablaye Diop jërëjëf Maysa Mbaye internautes yeeg euh, auditeurs yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax baax a baax bienvenue ci seen journal des faits divers euh, xalaas ak Malal Junior Diagne ak Mamadou Mohamed Ndiaye Diagne maa ngi lay ziar. maa ngi la delloo ziar Babacar di nuyu Mamadou Mohamed di nuyu auditeurs yi rajo Futurs Médias am njortu ni am nañu weekend bu neex. da ngeen def ak coono yi. sant di muñ ak moytu bëgg xaalis. Ndiaye. Ababacar. Ah, ziar naa la. maa ngi la delloo bu baax a baax maa ngi nuyu Malal. Hmm. gis nga àdduna de da ngay absenté am ñu bëgg a ñëw jël sa place Abba def na lu nekk. ah bon pour dox suñu diggante xaritoo gi. Hmm? Abba xam na suñu diggante moo ko mag moom. ba loolu la xam fu ne jaar na fa lu ne def na ko. xanaa xamoon ne dem na ba ñëw vendredi. juste rek pour occuper. dégg nga. <laughs> vendredi laa gis fii Abba looy def fii mu ne ma damay liggéey si. mënuma laa seetaan ndax comme malal nekku fi dama lay jàppale si ma xam li ma xam rek. tey wàññi tey <laughs> def lu baax <laughs> def lu baax def lu baax ji <laughs> nuyu naa nuyu waa Sénégal sant leen gërëm leen di am mbégte saa su nekk di am ak ñoom ci xalaas. Canva Plus. gamme capillaire la Canva Plus bàyyeekoo Amérique ñëw fii ci Sénégal ku ko bëgg da ngay dem ca Lay Cosmétique Lay Cosmétique Sandaga la nekk en face centre commercial Discover gamme capillaire Canva Plus moo ay ci dundal sa karaw moo ay ci sëqal sa karaw moo ay ci sàmm ci sa karaw. am na shampoing am na huile am na crème loolu mooy gamme capillaire Canva Plus jugee ba États-Unis d'Amérique ñu xool ko fa saytu ko fa càmbar ko fa ba wóolu ko mu wóor ñu ndi ko Sénégal ngir kon képp koo xamante ne ji danga am problème mu karaw muy sa karaw di ruus wala sa nga bëgg sa karaw di sëq poussé en longueur euh, et en volume utiliser gamme capillaire bii di Canva Plus ni ma ko waxee ku ci bëgg deman euh, seeti lay cosmétique euh, Sandaga en face centre commercial Discover wala nga woo ko ci 76 186 91 13. Ndiaye CCPS. comptoir commercial de plomberie du Sénégal champion yi ci wàllu sanitaire champion yi ci wàllu tuyauterie champion yi ci wàllu plomberie. comptoir commercial de plomberie du Sénégal ubbi place bu bees tàq showroom bu mag a mag ca Touba mi ngi ci rond point Ili lépp lu ngeen soxla ci matériel tuyauterie soxla ko ci matériel sanitaire ay matériel irrigation mi ngi foofee ca. comptoir commercial de plomberie du Sénégal ñi ngi Sacré-Cœur fii ci Dakar ñi ngi rue Valmy ñi ngi rue Tolbiac ñi ngi rue Floris waaye centre commercial euh, comptoir commercial plomberie euh, du du Sénégal bi nekk Touba seen numéro téléphone di 77 529 48 12 77 082 31 18 optique vision plus Sénégal. borom lunette partout et pour tous tàllal loxoom waa Sénégal sant leen gërëm leen di leen woo ci promotion bu am solo bi ñuy def ngir fin d'année bi ay réduction ci lunettes yi cadre lunettes yi ay arrivage yu bees tax dem na ba ci ba ci ci boutique de lunette optique vision plus Sénégal yi nekk ci réew mi yépp te loo fa jënd ci lunette wala nga jënd ko ci accessoire lunette optique vision plus Sénégal dalay may cadeau bu am doole cadeau boo xamante euh, la neex lay lépp rek ngi fépp kon ci ci Euh, di leen di leen xaar ci promotion bu am bu am solo bi. Africa Fly Tour. indi campagne 2G mu di gunge gaynde yi bëgg-bëggam mooy ku nekk mën a dem fële ca Côte d'Ivoire seetaani équipe nationale bu Sénégal ci Coupe d'Afrique bi ñu indi pack silver pack diamond ak pack gold ku bëgg dem pour 10 jours ku bëgg a dem Côte d'Ivoire pour 20 jours wala 30 jours Africa Fly Tour taxaw na ngir yóbbu la indiwaat la boo demee mu héberger la yoral la sa transport biir Côte d'Ivoire jox la ticket booy demee seetaani match équipe nationale bu Sénégal. tànn sa bu la neex la nga nekk Sénégal ci Afrique wala ci diaspora bi foo mën di dem bëgg dem Côte d'Ivoire seetil Africa Fly Tour avenue Cheikh Anta Diop promo import foofu la ñu nekk en face école Manguier 2 Africa Fly Tour mi leen di xaar ci campagne gunge gaynde yi ca Côte d'Ivoire seen numéro téléphone mooy 78 652 51 51 77 027 22 22 wala 33 858 77 52. savon créole. savon créole am na savon créole carotte am na savon créole miel am na savon créole citron c'est un savon gommant un savon unisexe ay lool nag ci xeex ay boutons acné ay pores dilatés tache noire ba ci peau grasse loolu mooy savon créole disponible partout au Sénégal information yu gën a yaatu mën ngeen ko am bu ngeen wootee ci 33 822 99 17 wala ci 77 516 93 49. Ndiaye waa kër Serigne Touba Fallé frère. ñooy. indi gamme bii ñu naan vite fait vite fait nga xam ne gamme bu complète la vite fait nga xam ne gamme bu baax la vite nga xam ne gamme bu efficace la lu ngeen soxla ci euh, seen bien-être mi ngi ci gamme vite fait bi ñu war a dugg ci sedd sedd ku ko wax xel dem ci ay tuñ yu weex am na lipolèvre vite fait bu efficace am na fraise coco wala menthe am nañu crème main wala crème pied am nañu lait de corps vite fait am frotté bu efficace mouchoir de de poche euh, lépp ci marque vite fait qualité bi gën. ak yeneen yoo xamante ne ji kon ñu ngi ci Gambie établissement waa kër Serigne Touba Fallé Frère nekk HLM Raay bi ñi ngi Tilène ñi ngi fépp ci réew mi ak Gambie di vite fait seen numéro téléphone di 77 555 11 11 77 806 15 19 di la wax ne établissement waa kër Serigne Touba Fallé Frère ñu indi di vite fait mi ngi sax ci sous région bi. Diagne c'est ça. c'est <laughs> la mooy batterie automobile qualité supérieure. muy mm. batterie automobile 600 batterie bu original batterie bu garantie nga xam ne am na batterie haute am batterie basse mooy batterie automobile 600 50 milliampère heure la tàmbalee ba ci 220 milliampère heure ku ci soxla demal fekk leen ci Sicap Foire ci wetu gendarmerie bu Foire bi foofu la nekk seen numéro téléphone di 33 867 20 22 77 236 51 70 wala 78 222 71 71. CSB ak techno promotion bu doywaar du quatre au 31 décembre ñeenti fan ci weeru décembre ba fanweeri fan ak benn ci weeru décembre téléphone boo jënd ci CSB ñu may la cadeau téléphone techno boo jënd ñu may la cadeau boo xamante ne ji moom foofu rek nga ko mën a gis CSB Colobane ak CSB techno VIP shop euh, boole ci nag dañu wàññi prix yi donc yeex ñàkk la fin d'année bii ji li CSB dafa ñëw ngir neexal leen ko ànd nag ay partenaire am ay marques yu authentique Euh, ci moom la fekk baax di leen wax ne CSB mi ngi ci foire international de Dakar euh, ak euh, Tecnu CSB ak Tecnu du tey dafa yàgg yàgg nañoo jëflante ñëpp xam leen jili CSB www.csb.sn CSB Colobane 33 821 41 25 77 132 10 10 wala CSB Parcelles Assainies numéro téléphone bi bindal 77. 545. 84 84. ayca dégg nga loolu. ñu dem ci euh, xalaas ki suñu clients yi ñu ngi xaar. laay ñu dem ñu dem nawetaan ñu dem ci nawetaan yi dem ci nawetaan yi. nawetaan da ngay teg tëgg mi yow tam ñu xam ci nawetaan yi jëm salle bi <laughs> yi du supporter yi de. ci euh, am ci nawetaan yi ñuy waxtaan. waaw jaaj nawetaan boo nawetaan boo ko ndee xalaas rek xamal du jàmm. Hmm. nawetaan yi de. dafa am match nawetaan bu amoon golf sud. géejawaay waaw. match ba jeex mais jaañ li ci topp après. Hmm. jaroon na bañ a jeexal match moom. ku gañe. noonu koy lijjantiwuñ loolu sax ñoom xooluñu sax lool ah li ca topp après. doon si def ñoom tam. jaañ déglul. acca. dafa am benn aletu bëggoon a def maanaam ci affaire nawetaan yi parce que nawetaan yi sonal nañu torop torop torop instant yi nawetaan égal violence ñoo ngi nii suñu koñ fii nii golfe sud. tey jii ñaari équipe yu doon football ñenn ñu gañe leen ñi perdant yi ñëw fii yàq te fii saccagé koñ bi comme pas possible toj oto jàmbur yi boulangerie bi nekk fii dañ ko toj résidence mbisin bi nekk ci wetu plage bi aussi mi noonu dañ koo toj yàq ay place yu jàmbur toj ay këru jàmbur te xam nga nit ku kurti kurti dëkk bi ni mu mel nga kurti kurti ba liggéey sa tuut jënd sa oto di ci daw di ci def say course di ci lijjanti sa bopp ay jamono ceeg ni mu mel kutti kutti ba tabax sa kër kenn xamuñu nan lañ def ba nit ñi am lañ am ba jëm investir ak ci lu mu mënti doon te xale yu koy def ay seen âge mat amuñu sax dix-huit ans boo leen di xool ay treize quinze ans yooyu la ñuy am wax dëgg yàlla tamit nawetaan yi sonal nañu torop torop torop torop nawetaan moom égal violence xaw ma nawetaan lan moo taxoon ñu ko doon def mais lii nii moom san ne vaut te ñi ci ñi ci bénéficier wu moo ñu nekk ci kaw kese ñu ci bénéficier xale yi amuñ leen duñ ci bénéficier lu di leen jàngal violence xeex dangay gis dugg ci ko ñu naan la lii nii buñ gañewul nawetaan bi égal prison nga xam ne prison moom ndoxu naan lañ ko def ils sont fous ñoom seen yoon nekku ci ñoom nañ xeex nañ toj boppu nit nañ agressé nawetaan bu amee sa xel du dal instant yi fii nii bu équipe bu ñuy joué nit ñi dañuy teel a te xoolal lool rek xoolal ak boobu noonu te jeunes yi mooy lool conscient wuñu conscient wuñu au fait man man man man mënuma comprendre quoi mënuma comprendre yow nga ne da ngay ñëw football ngeen war a nekk booloo nekk benn ñëw saafonte ñi gañee gañee ñu per perdre perdre prochaine fois nga gën a mën a taxawal say affaire mais mooy loolu daw comprendre nawetaan yi daal moom sonal nañu torop torop torop torop jaañ li lu ciy pexe. li taxoon ñu créé ko. Mhm. ñoom moom lañ fàtte xam naa ni. Mhm. Euh, génération bu bees bi dañoo fàtte li taxoon ñu créé nawetaan. mu école day tëj. Mhm. ñu créer activité maanaam lu boole nit ñi waa koñ bi ak waa koñ bi ñi xamantewul xamante ambiance am ci koñ mais am na ay match yoo xam ni day am ci diggante ñaari koñ yaay te xam ni benn route moo dox seen diggante. Mhm. mais tant que match bi jeexul dañuy aaye koñ bi traversé ñëw koñ bi. xoolal loolu ah, mel ni guerre. ci benn quartier bi ci benn quartier. Medina amatul nawetaan di presque deux ans. non violence moo ko waral. dañoo arrêté na tànn Dakar amatul fii. te luy boole la waroon nekk la waroon nekk. soo demee Ndar aussi c' est pareil boo demee parcelle bi c' est pareil y' a y' a que dans le sud laa déggul nawetaan mu am xeex de façon régulière mais Dakar Ndar moom dañuy reyante chaque jour. nawet bi jeexul. nawet bi jeex na ba ñuy dugg ci leneen ñu ngi waaye waxu seddaay jeex ba école ubbi ba xale yi commencé jàng nawetaan continuer c' est que il faut que ñoom ah, Amadou Kane premier problème baa ngi noonu. waaw kay def de réformes des réformes. profonde si nawetaan bi maanaam il faut ñu dem ci état fusion ay équipe benn koñ benn télé séparé leen nga am ñaari ASC ñi sol yu xonq ak yu weex ñi sol yu bleu ak yu vert lu jàkkaarloo benn télé moo leen séparé du ñu reyante. non dafa Diagne man su ma su ma su ma jàkkaarloo woon ak ñi kilifa yi nga xam ne ñoo yor nawetaan yi. yàgg naa ci nawetaan. waaw mouvement populaire yàgg naa ci. Mhm. parce que oxygène laa nekkoon. Mhm. daan couvrir nawetaan yi. Mhm. zone yu nekk couvrir yu ci bëri couvrir naa ko. wallaay donc naa nawetaan mais am na ma ci xam. mu loo ci miin ak aslaf. mais man tey su ma jàkkaarloo ñoom li ma leen di laaj mooy ban njariñ la am ci réew mi. non bëri na ay njëriñ waaye li mu yàq moo bëri. Ah, kon kay amatul njëriñ xam nga njëriñ bi mooy dina tax nga gis éclosion joueur di nga gis gars yi am ñoo xam ne ñu mën a jàmm jàng nekk ci mouvement associatif à travers le bureau à travers la l'activité culturelle ak yooyu noonu waaye dafa am lu nekk ci soow mi di si ñuul te kenn bëgg koo set ba ba léegi. te mi ngi bëgg a soow mi mooy fitna bi ak multiplication ASC ku mer créé sa ASC. dafa bëri daan nag kenn mënu jël benn jour di ko ci jaay. léegi nag organisation bi ñuy def ma fi gën a organiser. mooy championnat bi nan ko yokk doole. ba pare nawetaan ñu xool nu ñu ko defaraate parce que violence bi ci ëpp fi ñu toll nii. parce que bu njëkkoon da daan football nawetaan toj ko 3 mois. nu jëlee la sa équipe nawetaan yóbbu la sa équipe. de ville. boo ëmbalul ca koñ ba. waaw même boo ëmbalee sax mu football boo jëlee sa équipe de la tel nombre de match tel match boo ko doo dootoo mën a joué déwén. voilà nawetaan booy du ñu fonk championnat bi. boo joué boo joué cinq match boo joué cinq match championnat doo mën a doo nawetaan dootoo mën a dootoo championnat doo mën a football nawetaan xam nga combe Dembélé la sant ne mu dëkk Ndar. Mhm. kooku dafa toj dafa toj fa ASC Gelewaar nekk excentré bu mën a football ñu koy reporté combee ngi naaw ñu jëlee ko li jëlee ko nawetaan indi ko Linguère mu football dem équipe nationale locale dem ci sous-région bi dellu siwaat nawetaan la feeñe ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñeneen dafa nekkoon nawetaan mu nekkoon vivier équipe de ville yi mhm. dañuy gis ku toj nawetaan Casa Sport dem Casa Sport nga toj Médina ñu yóbbu la Jaraaf nga toj Diourbel ñu yóbbu la Sonacos tous trois mois yooyu c'était une occasion pour mën a wane seen bopp mën a am possibilité dem football ci niveau bi gën a mag mais léegi amuñu amuñuy terrain. Mhm. déjà Sénégal bëriwul ñu terrain. Mhm. ñu bëgg yore 3700 équipes fu ñuy fubale. ba noppi fitna rax ci. ba pare ah, bu ma déggoon ne yàq nañ. boobu dañu toj duus yi. njaay gu tar. te loo gën a métti si boobu mooy match nul la. fubal ngeen kenn nga ñëw. booyee wàcc buddi camp ya jël essence sotti ci gazon synthétique bi taal ko mu tàkk. dugg ci vestiaire yi toj vestiaire yi pour lan. après bu ñu taxawee ne nawetaan bi doxul. du muy ñu dem feneen. waaw. kii nag moom femme la bu brave. mais xalaas gi tamit. Hmm. Euh, mu ngi ci ñun de. xalaas hmm. ah RFM am na xalaas gu metti gu fi ne. maanaam RFM ci région yëpp benn doxut. nit ñi ngi koy kaas di ko. kaasal ci commentaire yi juróom benn weer da dem ba sax maanaam dootoo mën a romb benn commentaire parce que commentaire yëpp danaan RFM bi doxul RFM bee doxul RFM bee doxul. kon ñun suñ kilifa yi suñ wax ji génnul Dakar. Facebook la yem de. ndar yëpp Facebook lañ ko mais ñu am connexion Facebook. ñi mais ñi amul connexion nag ma man kër gi si ñoom ma fi Facebook. ñi amul connexion nag. <laughs> lu tax régions yi dégguñu ñu. c'est un problème de ñoo lakk. dëgg lu mat cinq xaw ma huit régions yoo xam ni. chaque fois tàkkul dañu bindal. am na ay tàkkul. Ah, chaque fois dañu koy bindal Kolda tàkkul bindal de. foog naa ne Ziguinchor tàkkul. ah waaw. Ah. loolu moom lu wér la moom. loolu moom lu jar a lijjanti la. man su ma xamoon lii la du xëy si. loolu xalaas la de Assane Gueye wo Diop Facebook rek fi ñu toll nii. moom ak fi ñu ñëpp fekk si ngeen ma. waaw fi ah, xanaa du lii nag farata la. lii moom yéen ay homme de réseaux sociaux ngeen fi ñu toll. waaw demee ci réew ba mel ne fa institution. Ah, donc euh, ñëpp bëgg ko. Mm-hmm. day baax ku xëy mën koo déglu. waaw am déet. na ko Assane Gueye yëkkati. ak Ziguinchor jox ko biraat biraan yëkkati ko def ci Pastef bu Pastefam tawee foofu mu yoo mu woo yuusu mhm. xam naa ne ci ndax yuusu moom mooy borom bagage yi moom bu ne ci bërit moom benn takkusaan moom ñaari appel rek mu sotti. moom lii bu ko nee moom man moom damay bàyyi moom. <laughs> lii kay nga man moom waaw waaw waaw bàyyi kay ngay wax. femme bi. Mhm. femme la bu jàmbaar. dañ mhm. ko doon jéem a agressé. Hmm, Maodo ci jàpp. c'est vrai nag jëlee na ci ay blessures. waaye góorgóorlu na ba saagam demul. na fu la de. mais bu lay expliquer agression bi ni muy demee ci nga xam ne am na am na am na ñu am na am fit am na ñu am fula seen. wallaay wallaay. Diagne déglul femme bi. sama agression bi ci VDN bi laa bëggoon wax. keroog dimanche laa wàcc. vingt heures. ne damay dem Sacré-Cœur jëli benn colis vite fait. parce que dama ne di duma liggéey damay noppal ko bëgguma woon génn sama kër. dem au retour ñuy daw ndànk ci moto laa nekkoon ak sama benn frère. nekk beneen moto bu yeb beneen nit topp nañ ñu topp ñu topp ñu topp ñu nekk suñu ginnaaw nekk lu yàgg di ñu topp jege ñu rek ba yegg si si man rek këf sama saak heureusement bi mu xëccee rek man j'étais réactive ma xëcc mu xëcc ma xëcc benn moment bi mu ko bëggee joxe coup de noonu moom ki doon dawal si motoom moom chauffeur moom mi ngi accéléré léegi bu accéléré xam moom day bifaale saag bi man ma topp saag bi donc di coup dama sursauté man sama ki doon dawal dama ko tëb donc ñu daanoo ndoog yëpp mais mu jul yóbbu saag bi noonu la yëf yi demee mais insécurité bi métti na daanu naa gaañu gaañu sama kanam bi sama loxo yi sama kii ki ma àndaloon tam gaañu na vraiment dañuy ñaan daal ñu defal ñu sécurité c'est important parce que gars yi sonn nañu nit ñi sonn nañu ba pare nit ñi dañoo ragal léegi kenn bëggatul dem fenn fenn fenn fenn fenn ndax insécurité VDN bi lëndëm na da ngay daw ba sonn doo gis sax om de tenue doo gis kenn kenn kenn kenn guddi gi sax nit ñi léegi ñemeetuñu génn wala nga yor dara sax sa saak wala dara dañu naan i moytul parce que temps yi gars yi dañu jogal ak moto yi vraiment daal moom soxla nañu vraiment sécurité ndax sonn nañu ndax mënoon na ma rey mënoon na ma jam leneen mënoon na ma ci arrivé ma perte ci koo xam ne jógoo doxi lu dul fulaak fayda yoruñu woon gànnaay ci li ma fàttaliku man yoruñu en fait waa ji sax bi ma sëkkuwee xëcc xëcc ma xëcc ma xëcc ba bi muy forcé kii bi di dem ba bi may daan ñoom dañu continuer daw mais oto bi ne si am na ñu taxaw ñu ñu sëkkuwee oto bi woon suñu ginnaaw nee na moom dafa foogoon ni ñun dañu paan ñoom ñu ñuy teg tànk parce que nee na ki yàgg na leen topp de nañ dafa foogoon ñun dañu paan ñoom ñoom agresseur ñun ñu ñuy teg tànk moom nee na loolu la foogoon parce que dafa gisoon kii nekkoon derrière ñun approche ba ba mu ba mu ba mu jege mu ne ki yàgg na leen topp de mais alhamdulilah ñu woon gànnaay mais ñun dañu daanu xalangu moto bi dal fee donc ñu bi ñu daanoo affaire bi dañu glissé wu ci tali bi ba suñu yaram bi yëpp yàgg ko mais ñoom jotuñu yor gànnaay dañu mujj daw par contre amoon na ñu ñuy doon suivre ñoom ñoo mujj taxaw. xalaas. dégg nga loolu. agressé nañ ko tubaabe. wallaay boo déggee ni muy waxee xam ne agressé ci tubaab la. waaye jàmbaar la tubaab bu am fit la de. day mhm. téye na saagam ba ni saag bi du dem. Mhm. tubaab bu am fit la. waaye man gis naa ko keroog waaye li xoosu ci même bëri na de. waaye moo tax bala demul. mais nag Ndiaye xam naa ne kii boo ko gisee di nga gis ku ñu war a woon agressé waay. Hmm? ah damaa xam ni mu waxee nii. <laughs> est boo reesab sa carte d'identité ci sa alizé maa ngi def passeport sa xaalis. fii ñu ne fin du ñu ne ko coppet yóbbu nooy def. ah dañ ciy ngooy rek. te ki ko yóbbu day jël sa téléphone pour jëndee ko 15 wala wala ay pion naan ko. nee na mooy ñàkk jom gi xam nga yow sa koo xamante ne ji sa sœur la. ah bu dul sa yaay sa sœur la. dëgg dëgg. mat na la soxna. wallaay wàcc guddi parce que dafa daana ji woon dooleem. dëgg dëgg nekk ci lu lew wàcc guddi am yéene dem fekki ak njabootam. muy seet mooy de transport bu ko yóbbu yow jàppale woo ko protéger woo ko gunge ko ba mu yegg mais ngay seet moom li mu yendoo liggéey. noo ko siifee noo ko siifee. xam nga loolu ak ñàkk jom la. c'est-à-dire mën a wax lu dul agresseur dafa ñàkk jom wax ñu li xew. il faut que moto yi ci réew mi ministère des transports terrestres jël ci ay matukaay. et pourtant nag euh, kii euh, noonu la ci amee ay boy yu am jom yu ci daan seen doole. déggoo man la organiser ni ñu jógalee oto yi ba oto yi am plaque nga am permis par la force wala doo dawal noonu la ñu war def borom moto yi ci réew mi yëpp da nga war a am plaque d'immatriculation par la force am permis de conduire par la force ñu defar ay gilet yoo xam ne ministère bi moo ko joxe wala mairie bi bu la joxee gilet bind sa numéro carte jox la numéro gilet bi nga am sa numéro ñu ne gilet numéro 47 Mamadou Ndiaye moto numéro nangam plaque d'immatriculation nangam moo koy dawal. ku ñu fi agressé nu plaque bi nii la ko. déedéet loolu mooy coow bi. ñoom ñi moom seeni moto jënd ko di ci liggéey. duñ ci agressé de duñ ci agressé. dem fekki moto jàmbur ñu sàcc ko. ñooñu ñoo ci agressé. mooy tax agresseurs yi yoo xam ne da nga leen di gis ñu yor moto nga dàq leen ñu bàyyi fa moto ba daw. daw dem parce que moomuñu ko. lool lool mooy lool mooy problème bi. mais mbëkk rek ma. loolu mooy problème bi mu tombé ci agresseur rek mbëkk borom moto bi mu daam. ñu dem feneen maa ngi ñaari xalaas damaa xamul nag. yow rek. Ah, tànn sa bu la neex la kii moom yàlla da koo nattoo dafa jaboot waaye ñaari doomam yu mujj yi dañuy jël rek. Hmm. dañuy sàcc rek. Ah. boobu benn la. benn la wala bële ca kaw mbóojeen la xewe mbóojeen menn wi. mbóojeen fu mu nekk waay. boori Joal. boori Joal kër Senghor. waaw. waaw waaw ngeeñeen boor yooyu. xeet yooyu la rek. boo rombee mbaal yi ñoom Masamba Diaw ñoo dëkk foofu. Ah. Samba Yoro ñoo nekk université. ñu dañ ko doon essayé kidnappé wala dañ ko kidnappé. déglu ko. lii man ñun la daal. sama mag bi ma bokkal ndey ak baay nga xam topp ci moom doomam lañ sàccu am mboojeen boo génnee mbuur di dem Joal fu ñuy wax mboojeen foofu lañ ko sàcc après midi bi mboojeen ci kartie bu ñuy wax Mariama yi foofu la après midi te xale bi ñoo ko fekk seen buntu kër mu ànd ak ay magam sax laa ko mën a tuddee parce ñoom ñëpp benn lañ ci biir kër gi lañ dëkk xale bu jigéen à peu près deux ans et demi ñu mu àndaloon ñaari góor la àndaloon moom moo ci nekkoon ku jigéen léegi am na ku ñëw jox leen ku ne cent francs après yëkkati xale bu jigéen bi yóbbu ko xale yi aussi dañoo daw comme xale bi yëkkati nañ ko yóbbu ko xale baa ngi jooy ñoom aussi ñu daw dem kër ga comme ñoom ñu ci buntu kër gi ñu daw dem ci kër gi wax seen yaay ni am na ku ñu jox xaalis de te yëkkati na diw mu ngi jooy léegi nag ci la waa gi yépp jóg yuuxoo yi fii dëkk bi yépp màbb ñi xale yu góor yépp génn ñuy wër di wër d'après xale bi buñ ko laajee ndax defu la dara dem déedéet defuma dara mais dafa génne woon ay bagaasam on sait jamais kenn xamul nag da ko bëggoon kenn bëgg da ko sàcc Euh, bëgg naa daal parents jël seen matuwaay ci seen doom di gën a surveiller seen doom di gën a vigilant seen doom yi parce que kenn xamul na bëggoon violer xale bi wala ko bëggoon sàcc en tout cas daal yàlla moo ci def jàmm ak xiiwal mais dama bëgg parents yi ñu jël matuwaay ci seen doom gën a vigilant ci seen doom di gën a surveiller seen doom parce que ay élection lañ jëm te Sénégal métti na ci ay élection doomu jàmbur nga fekk ko yëkkati ko yóbbu ko sàkk ko pexey ay waajuram di wër duñ ko gis li dara jaru ko parents yi maa ngi leen di ñaar ngeen gën a vigilant seen doom bi nit ki nag mu ngi nekk mboojeen mais li ko jàllee mboojeen palmarin joal ba dëkk village yi ndaw ndaw yi nañ gën a bàyyi xel ci seen doom bi comme def na ko fee jàllul moom dina ko def feneen mu jàll parce que dafa dem ak xale bi ñépp di wër ak yuuxoo yi aussi soreegu moo tax yóbbuwul xale bi mais dafa dem ba tool yi nga xam ne dafa am benn tool bu nekk ci kaw côté yi foofu foofu la dem dugal xele bi ci ay suufu garab taxawal ko foofu nit ñi ñooy wër wër wër wër ba egg si foofu dégg lu yëngatu après mu am gu dugg foofu gis xele bi fu ñu ko taxawal en plus xaalis bu mu ko joxoon cent franc bu mu ko joxoon sax bu muy dem da ko jëlaat kenn xamul cent franc bi lan la woon. xalaas. baax na daal. wax na lu am solo nag. Hmm. nee na parent yi bàyyi xel xale yi. ci période élection yi jëw nañ nekk sax beneen bi ci topp mooy. Hmm. na parent yi wax xale yi bu ñu def sarax bu ñu leen jox ci mbedd mi ñu jël. Hmm, tun am mbir la. fi mu nekk nii moom saraxa yeeg xarxa foofa yeeg maamoon yi dafa takkar naa sax nañu tëye xale yi ci biir kër yi di leen surveiller surtout xale yu jigéen yi mm-hmm. xale yëpp la ñu war a surveiller mais surtout xale yu jigéen ñi wallay beneen bi ci topp mooy xale bu génn di dem moo xam day jàngi fu mu mënti dem wax leen seen doom yi bu ñu leen saraxee bu ñu jël mm-hmm. la waa ji bindoon laaj xeef dee battu waaw foofu lañ toll lañ toll de dañu dëpp mbàtt yi mais nañu jaay mais nañu jaay policier ñoo gàddu suñu àq coupe du monde day am coupe d'Afrique am xale yi di doxi seen soxla génn di jubilé dara du leen jot mais bu campagne waree am rek ñu tiir xale yi kii dañuy sacrifier dañuy sacrifier ñu fàtte nañ yàlla de. nit ku ñuul moo bëgg nguur. ah loolu moo ñu sànq. maa ngi lire léegi benn benn. Ah. message bi ñu ma envoyé. bi Georges Weah di door carrière am Tonnerre de Yaoundé Paul Biya moo kon président Cameroun ba carrière Georges Weah jeex. ba mu jël fi ay. ballon d'or ba mu jeex ba po ba ba waa ji nekk fi sénateur ba nekk président de république ba jeexal bii am mooy président Cameroun. biyaa waay. gisoo donc Cameroun ñoom 40 ans yi ñu génn yëpp benn njiité yooyu. yow biyaa am na condition moom. déet xoolal li mu def kay Sénégal gagné coupe d'Afrique bi. mu war a wàcc joxe coupe bi. Ah. capitaine baa yéeg jëli coupe bi. waaw ah, dara. loolu man munu taxaw. loolu man réew lay am ñu ko nangoo. am koy téye loolu amoon Sénégal fii tey président bi tamu du góppi bu. kenn mësul gis lu mel ni. nu ñuy def. am ah, nañ tàggatoo tàggatoo ñu ndokkeel tam waa waa Ndar ci aéroport bu ñu dalloo aéroport Ousmane Masseck Ndiaye bi mhm. di ci gërëm waa APIX mhm. waa kii AIBD mhm. ndax euh, la ñu liggéey foofu macha allah na solo dina dina tax dëkk bëgg na a suqaliku bu baax a te waa Ndar nañu sàmm bërëb boobu jekk na te baax na ci waa dëkk bi am na solo aéroport Ndar bi aéroport Ousmane Masseck Ndiaye leen ko tudde am na solo jërëjëf jërëjëf Vision Plus Sénégal établissement waa kër Serigne Touba Fallé frère Africa Fly Tour gamme capillaire Canvas Plus ak CCPS comptoir commercial de plomberie du Sénégal ñoo leen doon may seen émission xalaas RFM Radio Futur Média